Yalla yalla yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp yal na yàlla ci suñu loxo ñun ñëpp xawale ñu ci yoon moom bëgg xawale ñu ci yoon bëgg rabbi def ñi di yam rahim ñu dellu ci bi di maqsuratu bni durayd rahimahullahu taala eh, ci darsu bi weesu ñu ngi yemoon ci fi al imam ibnu durayd rahimahullah di wax ne nit moog bànqaas ñoo yem bant ab bant bu lu yomb la pour nga jubbanti ko jaarale ko fa nga xam ne moom nga bëgg waaye bant bi boo ko bàyyee ba mu wow jubbanti woo ko mu dem ba wow boo ko bëggee jubbanti luy jafe lay doon boo moytuwul bant ba damm lay def waaye du jubbanti ko nit tamit noonu la mel bu nekkee ndaw fi nga ko bëgg jaarale foofa lay yomba jubbantee foofa lay yomba jaarale waaye boo ko seetaanee dem ba nekk mag nga ne da koy jubbanti boobaa jubbanti ko luy jafe lay doon amaat na du jubbanti ko kon noonu misaalu doomu aadama la ci war koo yar léegi lu jiitu loolu ci bind bu weesu dañu waxoon wa kullu qarnin naajimin fi zamanin fa huwa shabihu zamanin fihi bada imaam ibnu dureyd ne wa kullu qarnin am na ñuy def bi fathil qaafi bu waa muy al qarn li ñuy tuddee miatu sana muy téeméeri at bu fekkee am na ñuy def qirnin wa kullu qirnin boobaa bi maanaa ar rajul muy bépp waay moo xam góor la wala jigéen naajimin ba aji feeñ fii zamanin ci jamono fa huwa moom waa jooju shabihu zamanin aji niroolaak jamono badaa jooj feeñ na fii ci moom maanaam nit daal ci jamono ja nga xam ne ni ci la feeñ rek na jamono ja mel noonu lay mel maanaam li ëpp ci doomu aadama bu dee jamono yàqute la jamono yàqute nit ñi daanaka ñu ëpp ci ñoom dañuy yàqu lu dul bu dee jamono mbaax la tam ñu ëpp ci nit dañuy baax waaye boo xoolee sax même ci milliers yi maanaam ni ñu tuddee bërëb yi waaw dañaa almaru ibnu biati arab yi dañ koy wax nit maanaam doomu milieu bi mu juddoo maanaam bii am environnement am li gën a bari ni sa environnement mel rek noonu ngay mel bu dee environnement bu bon la environnement bu bon bu dee environnement bu baax la li ëpp environnement bu baax ngay am loolu ay exception mën na ci am nag waaye li gën a bëri loolu mooy am euh, li gën a bëri loolu mooy am waaye danañuy gis ay exception yooyu di am ndax ndaxte gis nañ ay yónnent sax salawaatu rabbi wa salaamu alayhim yoo xam ne seeni njaboot yu yaroo seeni keppaar jël nañ weneen yoon wu wokkul ak yoon wa nga xam ne ñoom foofu lañ doon woote kon loolu nekkul ne maanaam buñ ko waxee rek dafa général waaye danay am ñoo xam ne dañuy ñëw ci jamono mbaax bal juddoo ci këru mbaax sax ñoom jël weneen yoon am ñoo xam ne dañuy juddoo ci këru mbon yonent yàlla Moussa mu ngi yaroo ci ron firawn te teewul la yàlla namoon ci moom loolu dafa sotti kon loolu buñ koy wax mooy règle générale bi kon loolu lañ bëggoon leeral léegi ñu continuer suñu bind mu ne man zalama annaasa taxaamaw zulmahu wa azza anhum jaanibahu wahtama وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنبات السفا من من ظلم كتون الناس ني تحاما وني مويتندكو ني واتندكو تحاما موي ني آرو فوف نون لمتي نام رك موي ني مويتندكو تحاما وني مويتندكو zulmahu ak tooñam mu ne koo xam ne nii moytandiku moo ñu sori ko mu ne koo xam ne dafay tooñ nit ñi mu ne nit ñi dañuy moytandiku ay tooñam wa azza jafe anhum walis leen jaanibaahu ñaari wàllam waxtama mu daal di aaru waxtama mu daal aaru yaa ngi dégg mhm. mu ne nit ñi ku leen di tooñ bu ñu xamee ne nit kii ku mën a tooñ la maanaam ab defantekat la waaw koo xam ne du baale koo xam ne lay ñëw di leen tooñ mu ne kooku nit ñi dañ koy sori dañ koy moytandiku te kenn du dugg ci ay mbiram loolu da koy gis ci nit ñi maanaam bu fekkee da ngaa lewet baax lool ku jóg da tooñ jalgati sa àq dem nangam waaye bu ñu xamee ne kii moom waxuma la fay waaye moom ab tooñkat la boo xam ne nii kenn muccut ci moom nit ku bëri ay la kooku ñëpp koy moytu ñëpp koy daw waaw kenn ñemewu koo tooñ waxuma la léeg-léeg sax nit teg fee ak juróom wala teg fee ñu ne lii alalul diw la kenn du ko ñeme laal ndaxte xam nañ jikkoom xam nañ ne kooku moom waxuma la fay waaye moom sax day tooñ ñëppay muslu ci aw ayam mu ne waxum ñoom nag nit ñi azlamu ñoo dàq tooñ li man ñeel ka nga xam ne laan laana leen jaani bu ak wàllam min xayaati anbaati safa ci jaani sulliti jaani sulliti bàmmel mu ne nag képp koo xam ne danga baax ci ñoom lewet di leen defal teraanga ci buñ la tooñee ngay jëllale maanaam nekk ku lewet rek ci gàttal mu ne nit ñi dañ lay tooñ ba mel ni jaan joo xam ne dañ koo sulli dañ koo suuloon daal di koy sulli ci ay bàmmeel jaan jooju ne muy meree nga xam ne comme tasel du la du la baal ngir mer mu ne nit ñi noonu la ñuy mel ci yow maanaam dañ lay lor lor gu méttee méttee métti bu fekkee ne yow da ngaa da ngaa lewet waaye bu fekkee ni ku naqari deret nga nit koo xam ne ku bari ay nga nit ñi dañ lay moytandiku di moytandiku saw ay waaye boo baaxee ñoom nag ñi daal lay dëggate daal di jaar sa kaw moo tax mu ne man zalama ku tooñ annaasa nit ñi taxaamaw ñi sori taxaamaw ñi aaru ñi moytandiku zulmahu ak tooñam wa azza mu kenn du ko tooñ mu daal di aaru waxum te ñoom nit ñi azlamu ñoo dàq tooñ min xayaati ambaati safa ci jaani sulliti bàmmeel as safa bi maana al qabr ci jaani sulliti bàmmeel li ma ñeel ka ñeel ka nga xam ne na luhum ñeel leen jaanibuhu ak wàllam mu ne wannaasu kullan in fahasta anhum jamiica aqtaari albilaadi walqura cabiidu di lmaali wa in lam yatmacuu min gamrihi fi jurcatin tashfi sada maanaam bayit boobu nii bi njëkk a wax nekkul ci nekkul ci ci téere bi waaye danañ danañ koy indi di ko bind xam nga bi mu waxee وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حياتي من حياة أنبات الصفا دفتاتك عبيد ذي المالك léegi nag ñi ciy teg ne wan naa su nit ñi kullan ñoom ñëpp in fa xasta boo gëstoo anhum walis leen jamee aqtaaril bilaadi mboolem gox yi dëkk yi wal réew yi wal qura ak dëkk yi abidu dil maali jaami boroomi alal lañ wa in lam yatmau donte xeme muñ donte yaakaaruñ min xamrihi ci lëggam mooy alalam ju bëri ja fii juraatin ci guux tasfi boo xam ne dana saafara moom guux ba as sada maru kondañ mu ne nit ñepp nak la ci bokk yamale bu fekkone da nga wër aduna ak li ci biiram di gëstu nit ñi mu ne da nga fekk ne nit ñi ay jaam la ñeel borom alal yi donte xam nañ ne ki alalam ji limi bëri sax duma ci am benn mën ta safara sama maru metti metti mën ta regal sama xif bu tar bi mu ne nang nañoo nek seeni jaam yow moom amal alal rek da koy gis ci nit ñi dañuy bëgg ko am alal donte xamuñ ko sax waaye fu ñu toll moom la ñuy waxtaanee moom la ñuy tagg moom la ñuy nangam di ko tiitaroo même bu ñëwoon nuyu leen sax ñu ne tase naag diw nuyu na ma nangam ak i nangam donte xam nañ ne kii du yàgg bañ lekk ci alalam ji dërëm waaye ñoom bëgg nañ ko rek parce que borom alal waaw sag la ci ñoom mu daal di ci teg mu ne wahum liman amlaqa aadaun wa in sharakahum fi ma afada wa xawa mu ne wahum te ñoom nit ñi nag aadaun ay noon lañ liman ñeel ka nga xam ne amlaqa ñàkk na al imlaq mooy ñàkk wala taq wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin comme ni ko yàlla waxee bu leen rey seen doom ngir ragal ñàkk mu ne ñoom nit ñi nag ay noon la ñeel koo xam ne dafa ñàkk wa incharakahum ki ñàkk ki ñàkk ki nag wa incharakahum donte bokkaale na ak ñoom fii maa ca la xam ne afaada jëriñ na ko wa xawaatam làqu ko fii maa ne afaada jëriñ na ko wa xawaatam làqu ko wala afaada fàggu na ko wa xawaatam làqu ko waaw maa ca la xam ne afaada jëriñ na ko waxawaa tam làq ko mu ne nag donte sax ku ñàkk moom lim am a kës néew mu ngi koy jël di ko bokk ñoom bu dee dooleem la bu dee waxtum la bu dee aajoom la bu dee nangam nangam la yëpp rek parce que ala joxe moom duur rek alal ndaxte nit ki dana la jox xalaat dana la jox léeg-léeg nga jaaxle mu ñëw wettil la toog ak yow boo amee soxla mu jàppale la aw sàkket wala mu jàppale la nangam kooku la mu lay jëriñ amaat na sax ki ñëw yëkkati ab junne da ngay jàpp ne ci saa si moo la jëriñ fekk kee sa giiru dund mu ngi nekk yow taxoog yow di la jariñ ay jëriñ yoo xam ne amaat na sa bët euh, sa xel bàyyiwu ko waaye fekk na njëriñ loolu sa amaat na mu ëpp doole mu ne doomu aadama yi noonu lañ mel waaw yow moom boo ñàkkee day mel ni da nga leen a def dara ak loo baax baax ak loo lewet lewet waaw moo tax benn waykat di wax ne in qalla maali fa ma xillun yusaadiquni aw zaada maali fa kullu nnaasi xilaani من إن قلبني مالي سما على الفما خل أمل بين خير يصادقني بي قريتون من أو زار بدولة كون مالي سما على الفكل الناس إن يب خلاني سما خير لني دون وأمير المبرة خير ويا بنيا كدو جسكن فوفلا جمعنا طول خلنا الإمام ابن دريد رحمه الله مورا أدنى دفع من يتريا السنة الكونية نقم نون لي على بند أدنى بي لين التاريخ يعيد نفسه لأمون دمرين ما يلي أما التاريخ يعيد نفسه adduna bi bo xolé bu mu soso ba fimu yem da ngay gis ni nit ñi ay khulafa wu lañ rek dañuy wutante rek waye li ñuy dundu ñaarel boko setantele la cey wuté yu néew néew lay doon waaw xoolal imam ibn Durayd rahimahullah bi mi wax li lo xam ne ëpp na junne at ak legi mu melni tay suñu jamono lañ koy wax mu dal ci tek mu ne ajamtu ayaami wamal ghirru kaman wamal xirru wamal ghirru kaman taazzara ad dahru alayhi wartada mu ne aajamtu nattu naa ayaami samay fan wamal xirru de tëxët al xirru mooy tëxët mooy koo xam ne ni xamul dara yëgul lu xew amul benn expérience ci àdduna waaw xàmmeewut ràññeewut kaman di mel ni koo xam ne ta azzara ndërëx laa yoona ad dëhru jamono alay ci moom war tadaa mu daal di koy làmbaayoo xam nga al izaaru mooy ndërëx laay maanaam nga jël ko woddoo ko mu ne nattu naa jamono ayaami samay fan mu ngi ci nattu sama jamono rek waaye mu ne li ma xam mooy ab tëxët koo xam ne ni amul benn expérience musta jànkuwante ak jamono fi mu nekk rek la nekk damu dikkul jéemut a xam dara mu ne kooku mënta yem ak ki nga xam ne moom jaar na ci jamono jamono def ko lu nekk jamono walbati ko def ko sër jamono jël ko def ko ay mbubb mu mel ni daal jamono da koo wëlbati def ko nu mu ko neexee xam nga sa mbubb mi fu la neex nga koy jaarale nu la neex nga koy lemee walbati sol fii nii dëggatee lu nekk nga def mu ne kooku bokkut ak ki nga xamante ni moom ab tëxët bi bokkut ak kooku de koo xam ne jamono jaarut ak moom fenn bokkut ak ki nga xam ne jamono jaar naa ak moom fu nekk def ko sër def ko ndërëx laay def ko yëre moo tax mu ne aajamtu na tuna aajama mooy firi màtt na xam nga bant bi nga jël di ko màtt ba xam dafa tooy ak say bëñ wala dafa wow di nattu bant bi loolu lañ ci tuddee aajama nat màtt na léegi nag mu mel ni yow da ngaa màtt jamono ngir natt ko pour xam comme ni ngay màttee bant bi pour xam dafa wow wala dafa tooy moo tax mu ne aajamtu nattu naa mooy matt googu noonu fa la bayee ko ayaami samay fan wamal xirru dee tëxët du wamal izzu am na ñu def wamal izzu waaye wamal xirru la dee tëxët kaman di mel ni koo xam ne te azzara ndërëx laa yoon ad dëhru jamono alay ci moom tam lambaayoo laa yarfau lubbu bila jaddin wala yaxutuka aljahlu ida aljaddu ala mu ne laa yarfau du yëkkati allubbu xel bila jaddin ci lu dul cër waaw ci lu dul cër wala yaxutuka du la sippi du la sippi aljahlu réer loo am am xel loo bari bari xam-xam lu sa xel ñaw ñaw ñaw te fekk amoo am koom loola du la def mukk nga yëkkati ko fa nit ña waaye loo réer réer loo ñàkk-ñàkk xel bu fekkee ne am koom moom yaa ngi moom mu ne loola du tax mukk nii ñi maanaam nit ñi duñ la sippi mukk ngir sa réer wala ngir sa ñàkk xam bu fekkee ne am nga am koom mhm, bu fekkee am nga am koom kon nit ñi noonu la ñuy dundee man lam yaizu dëhru lam yanfaahu ma raaxa bihi lwaazu yowman aw gada mu ne man lam yaizhu koo xam ne nii waaru ko addëhru jamono lam yanfaahu du jëriñ ko maa la nga xam ne raaxa gontu na bihi ci moom alwaazu aji waareja yowman ab bés aw gada wala mu xëy ca mu ne képp koo xam ne nii moom amul benn jëleewul ci jamono benn leçon benn dars boo xam ne nii mën na koo waar mu ne du ko amal benn njëriñ bu fekkee ne ab waaraate kat daa daa xëy wala mu gont maanaam subaa ngoon daal mu ngi nekk di waaraate lu tax ndaxte jamono mooy alwaaiz bi gën a mag ndaxte nit bu fekkee da ngaa nekk ak sa baay mu xëy faatu nga nekk ak sa ndey mu xëy faatu nga nekk say soppe ñoom ñoom ñu xëy faatu yow loolu naka la nit di ñëwaatee di la wax ci wàllu dee di la fàttali di la nangam nangam la chaque fàttali yàlla moo ñu ko digal waaye loola bu fekkee ne jëloo ci benn leçon waajal sa bisu penc yow mi nekkoon ak sa baay nekk ak sa soxna nekk ak sa nangam soxna si nga xam ne yéen a bokk benn néeg mu koy faatu jëkkër si nga xam ne yéen a bokkoon benn néeg daan fanaan mu koy faatu loolu yaa xii bu fekkoon ne jëloo ci benn leçon fàttali ko dee góorgóorlu préparé sa bàmmeel est-ce que amatina est-ce que mënatina laa jëriñ keneen ku ñëw di la fàttali dee la chaque waaraatekat bi gën a mooy euh, mooy mooy dee dañ naan euh, dee dalay dalay dalay fàttali dalay fàttali Euh, li nga xamante ne ni mooy dalay waar maanaam de ab waaraatekat la boo xam daf lay waar kon jamono bu fekkente ne jëriñu la dara jële woo ci benn leçon loo loo mënti lu waaraatekat yi mën ci xëy di wax tamit wala ñu gont di wax du la amal benn jëriñ man lam tufidhu ibaran ayaamuhu kaana al ama awla bihi min al huda mu ne man képp koo xam ne lam tufidhu jëriñu ko ibaran ay waar ibaran ay xalam jamono ci ibratun ibar mook ak ak euh, mook al mawizatu ñoo yem waaw mawiza mooy waare ibar tamit mooy xanam ak tazkira ibratun ak tazkiratun yëpp benn la fàttali moo tax mu ne man képp ko xam ne lam tufidu jëriñu ko ibaran ay xalam mooy ay waaru ay fàttali ay yaamu ay fana mooy jamonom kaana nekk alama ngumba awlaa di gën a yeey bii ci moom minal hudaa ci njub mu ne koo xam ne nii ci bisam yi ci dundam jëleewut ci benn njëriñ jëleewut ci ay waar li koy dal suba ngoon tey mu dal li fakastalu suba mu am jafe-jafe suba mu nàngam ginnaaw suba mu gis lii ginnaaw suba mu gis leneen mu ne kooku bu fekkee loolu jëleewut ci benn njëriñ kooku mu ne mu gumba maanaam réer moo gën a yey ci moom mu jub lu tax ndaxte lépp loo xam ne day xëcc doomu aadama muy ay waar yoo xam daf koy xëcc jëmale ko ci njub mu war caa jëlee leçon loolu jëleewu ko ca kon kay kooku parewut pour jaar yoonu njub kooku xamal ni yoonu réer wam jaar te mooy ak ngumba xamal ne loola moo gën a yey ci moom lu tax ndaxte waar yi moom jëlu ko kon kooku mënta jub mënta gindeeku ndaxte la ko doon gindee moom dafa faa wàcce kon nag kooko bu sànkoo dañuy xam ne sànk moo gën a yey ci moom loolu lay wax foofu moo tax mu ne man képp koo xam lam tufitu jëriñu ko ibaran ay waar ay yaamoo ay bésam kaana nekk alama réer ngumba googu lim ci na mooy réer sànk xawlaa di gën a yey bii ci moom minal huda ci gindeeku muy ci njub man qaasa ma lam yarahu bima yara araahu ma yatnu ilayhi ma naa mu ne man képp koo xam ne qaasa natt na alqiyaas mooy li ñu tuddee natt natt na maa la nga xam ne lam yarahu gisu ko bi maa yaraa ci li muy gis araahu mu wan ko maa la nga xam ne yatnu dana jege ilay jëm ci moom maa naa la sori mu ne képp koo xam ne nii dafa jël li nga xam ne nii moom lay gis ci àdduna suba ngoon mu ci teg bëtam mën na koo jàngal li ñëw waaw li jege nii mën nga cee jëlal leçon mu wan la li nga xamante ni moo sori nan lay mel masalan tey mën nga euh, xalaat euh, ban misaal bu gën a jege euh, tey yaa ngi nekk ak nit gis nga ko muy def ay njombe muy def ay ñaawteef nga gis li nga xam ne moo ko ci fekk ci ay mbugal ci fi nga xam ne foofu lañ jaar ak moom yow bu dee borom xel nga lii nga xam ne nii moo la jege nii te yow dalagu la xam nga yow li nga xam ne dalagu la moom mën nga ko jàppee lu sori waaye li dal nit nag nga teg ci sa bët yow loolu moom lu la jege la mën nga cee natt yow bu fekkee da ngaa jaar même yoon wi que moom yow tamit fan ngay mujjee ji kon lii jege lii war na laa war li sori li nga xam ne yow dalagu la. ba loolu nga jëlee ci ab leçon moo tax mu ne man xaasa ko natt maa la nga xam ne lam yarawu gisu ko bi maa yaraa ci li muy gis araaw mu wan ko maa yet nu li jege ilay jëm ci ma maa ali sori mooy li nga teg sa bët nii wan na laa war a xamal li ñëwagul bu ñëwee nan lay mel waaw kon loolu ay leçon yu mag a mag la yoo xam ne imam ibnu Jurayj rahimahullah mu ngi koy jàngale fii yaakaar naa mën na yem ci bind boobu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala